yoo xam ne xam ngeen ngeen nga dëkk xam ngeen xam ngeen bu bu quoi li mu li yi xam ah, ak juillet lu tolloo quarante nit gaañu nit ci suñu fii rek suñu koñ rek suñu koñ Malibu am na quinze cas selon le colonel Diatta yëngeen xam nga yéen kenn mënu leen a jëlee waaye soo leen ñëwee fii nag dañu war a am benn bopp man balaa maa wax autorité yi yan laay wax nag nee nañu dafa am foo xam ne dañ ko tere et cetera et waaye ñoom leer na leen fii moom ala kulli aleen xale yi dañu fii ñëw di fi sànq ñoom ñoo war a créer condition bi tax ba ku fi ñëw li fi xew kaay li fi xew mooy lan mën nañ ci indi

début de solution la bàyyi du solution solution bi mooy autorité yi defar def ay conditions yu war a mën a tax nit ñi sangu te duñu dee parce que géej gi ñuy sangu bëri na waaye yéen tam est-ce que xam ngeen fii di sangu